xaalisu hôpital. Mhm. Euh, c' est ça le problème fondamental parce que chaque réunion paritaire bu ñu demee. Mhm. Euh, Euh, autorité hôpital yi du ñu indi xaalis bu ñu liggéey ci weer bi pour ñu mun ko séddale personnel bi mhm. à chaque fois bu ñu demee principalement ACP bi mhm. du indi information yi day naaj information nu ko neexee saa yu ko neexee lay génne chèque teg ko foofu mhm. loolu lañ nee nag mënul continuer ñun ñooy liggéey xaalis bi xaalis bi nañ ko génnee ñu gis ko ñu xool nuñ koy càmbare pour xool nuñ koy séddale ci personnel bi donc mënuñu permettre ay nit toog ci hôpital di bëgg def lu leen neex ak xaalis hôpital bi te ñun ñoo koy liggéey donc loolu lañ nee nag dinañ woo personnel bi yëpp ñëpp a génn. ñoo informé ñëpp pour que suba lu munti am tamit ñu xam ne ni que lii moo fi am. donc loolu lañ bëgg mu takk ci hôpital lu ñu liggéey ci weer bi fin du mois bu jotee nañu ko tegal mu leer nañ ñu xool nu koy séddale personnel bi jël wàllam hôpital bi jël wàllam. mais mënuñu ko nangu ti que benn nit toog bureau wala ay ñaar nit bëgguñu téye en otage. loolu na moo tax lii sitting d' avertissement on l'a dit sitting d' et d' information lii nag c' pour informer l' opinion publique et pour avertir l' autorité l'hôpital la prochaine fois que ça va se reproduire du ñu yem si sitting si départ la ñuy laaj te bu ñu jógee pour départ bi ñëpp dinañu dégg te boobaa nag borom boromam dina xam ne ni que ñun ñi bu ñu décider dina dem donc c' est juste ça qu'on voulait informer le personnel l'hôpital que c' fini suñu xaalis ñoo ko liggéey à la fin du mois on veut le total de l'argent ku nekk na liggéey liggéeyam ku fi nekk pour recouvrer na recouvrer ku fi nekk pour soigner na soigner donc mënuñu nekk fii di naaj personnel ñu liggéey bay bëgg a ku war a recouvrer mu toog biiram di ñu fonto donc c'est fini la prochaine fois avertissement la départ la ñuy laaj boobaa te boobaa on va nommer des noms te boobaa bu ñu jógee borom dina dem incha d'abord pour préciser, c'est pas une grève. C'est juste un sitting d'information et d'avertissement. Information pour l'autorité de l'hôpital.